Bosu rahmatullahi taala barkaatu jaar naa leen bëgg leen di leen safoo di leen tiitaroo di leen ngand ngandoo saa su ne fii si Kaolack TV ah, seen xarit seen doomu nday bale taxaw waaw <laughs> asunaanu bale waaw tey mu mu <laughs> a téeméeri yemb ah, ma neex laay def lu ma saf lu ma neex wax lu ma neex waaw daraaye dégradé nu koy gars yi waxee rek fil falaale sànnee ko def la saf def la wax toj kaani paccal li ngoom jàmm daqaar liñ bëgg <laughs> ah journalu bale waaw tey mu neex rek fii si waaw ah démb nag euh, gars yi dama xëy suba gi gars yi jox ma benn information quoi information <laughs> information bi moom xam naa information bi lu ma neex la information bi lu muy dund la information bi waaw gars yi war a dem si euh, élection yi candidat yi war a dem candidat yi war a jàll candidat yi war a dem deuxième tour ah ku nekk dégg na leen <laughs> waaye saa waay yi Serigne mbuuba jali sëriñ mbuub mbuuba jali waaw nu koy gars yi waxee buñ koy neexal loolu la ko waxee sëriñ mbuub mbuuba jali sëriñ gars yi xool nan la seetu la xool sa kele xool la sëriñ mataloo quoi mataloo waaw loolu wax de ñu ne sëriñ yow mataloo ñu ne gars yi nee nañ bay boo yow nga fori <laughs> na nga new waaw yow élection yi bokkatoo waaw nee na da ngay dem deuxième tour comme euh, booy yi bu ñu demee étudiants bu ñu jàngee ba am bac dañuy dem deuxième tour waaw comme yow dañ laa yóbbu deuxième tour war laa saytu yow da ngaa war def oral oral <laughs> loolu étudiants yi wax de ah boo demee deuxième tour da nga dem oral <laughs> sëriñ mu ba jale waaw nee na nga yow nga fari new waaw yow da nga ay dëkk la dese yoo xamante ni da nga fa war a dem def ay parrainage yooyu noonu matal te 48 heures la may deux jours. tey dëkk yooyu nga war a dem sëriñ ban dëkk nga war a dem yow sëriñ presque Kaolack rek Kaolack rek ñoo la mën a jàppale Kaolack ñoo la mën a dimbale Kaolack ñoo la mën a teg tànk ndax yaay seen maire ah kon Mbuuba Jali fari new quoi garaawul amul problème baa mi mu ngi nii quoi fari new waaw <laughs> waaw ma desiwaat euh, ma desiwaat euh, beneen candidat boo xamante ne daa fari new muy Pape Djibril Fall waaw Pape Djibril waaw yow tamit gaa yi nee nan seetu nan la xool nan la xoolaat la gëstuwaat la séentu la sa góor yooyu yëpp dem nan ko xool gars yi xool nan la gars yi tamit nee nan yow da dem dem oral quoi <laughs> nga fori new waaw da ngaa war a fori new yow Pape Djibril ndax gaa yi nee na mag gaa yi ban la xoolee xoolaat la nee na da ngaa waroon yem ci wala presse bi rek mënoon na yem ci presse bi rek Pape Djibril <laughs> waaye comme yow député nga garaaw sant yàlla rek waaw fori new quoi fori new waaw Pape Djibril fori new waaw gars yi moom nee na Pape Djibril mii na fori new kon Pape Djibril ko def ni sëriñ boobu def rek àndaloo moom rek waaw mën ngeen bokk benn orel bi sa xaw foo war a jaar xaw ma fu ngeen war a jaar waaw bu fekkee orel ngeen bokk wala oto ngeen bokk xaw ma kuy njëkk a wàcc sa morom waaye ku wàcc rek na jox sa morom rek nga nuyoo ko ne ko bàyyi bàyyi ba ba beneen yoon waaw fori leen new de nga bam ngir bi new <laughs> waaw ma dee ci keneen eh, kii nag kii des nag kii kii nag moo jar a waxal nag kii moo jar a waxal kii mooy Idrissa Seck Idrissa Seck ñaata at ñaata at ngay bokk ci ay élection ñaata at Idrissa troisième quatrième sax doo koy jël idi ngir yàlla war a suuli bii nag mooy sa dernière bii gars yi nee nan nga fore neew ko nga dem deuxième tour nga dem oral kon mu ko gars defee waaye na avant nga dem oral nag toogal nga wax ak askan bi bii nag boo jàllul moom bee ba nga wax ak askan bi na bàyyi naa ndax idi wax yàlla sonn nga si lool dang dangi nga ba bëccëg man mii woo nga ma téléphone na ma bare damaa bëgg nga jàppale ma gaa yi parrainel ma dimbale ma kon kaw la xam naa ne gaa yi xamuñu ma nan ma dimbale nga may ma ay foofu ay parrain waaye Idi gars yi nan la xamut nan laa xamut wax yàlla nga bàyyi quoi bàyyi bàyyi Idi ndax yow fu nga dëkk sa kees mënoo faa amati dara booba na nga war a xool sa bopp Idi comme ay biñu dugub <laughs> da ngaa bëgg biñu dugub Idi boo bàyyee defar rek da ngay bàyyi man loolu laa lay digal quoi nga bàyyi nga toog kees. ubbi ab usine wala ubbi entreprise boo xam ne dañuy defar bi ñi dugub waaw ndax da ngaa bëgg beñe dugub <laughs> sa waaj damay bëgg beñe dugub ah kon Idi fari new nga tàggatoo wax askan bi ne bàyyi ko quoi nga bàyyi bàyyi bàyyi quoi waaw nga retraite bu koy gars yi defee ñëpp génn retraite Idi bàyyi rek fari new ndax yow say parrainage matut ñu ngi koy xool di ko xoolaat di ko saytu di ko seytuwaat ndax Idi mataloo quoi mataloo. matuloo quoi damay def kon ma def gars yi rek ñoom Serigne Boub ak ñoom Pape Djibril Fall su dossier bi <laughs> idi lesel quoi lesel waaw lesel waaw comme ni koy gaa yi waxee rek kon mu ngi noonu ak lu bale ak yaate bale lu xew si réew mi lu xew si bitim réew lépp fi laay toog ci plateau bi maa koy wax maa koy def ba mu neex maa koy wax fii kon ma tàggatoo ak yéen bu subaa jàmm incha allah rabbi ok bye bye thank you wërmeen good